إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ay mbokk jullit yi gannaaw ba ñu santee suñu boroom seede na moom dong moo yeyoo ñu koy jaamu seede na yonent yàlla Muhammad jaamam la woon bu mu yónni woon ci ñun ngiree mu jàngal ñu naka lañ koy jaamoo ñu ngi koy ñaan mu julli ci moom ak njabootam ak ñi ko topp ba ila yawmi din gannaaw loolu mbokk jullit ngalla waay ñi ngi leen di dénk ngeen ànd ak ragal yàlla ragal yàlla mooy la gën ci lu ngeen di nëbb mooy la gën ci li ngeen di feeñal mooy la gën ci li ngeen di yóbbaloo mooy la gën ci li ngeen di denc ngir ëllëg ñu ngi ñaan suñu boroom yàlla nañu wërsëgal ñu lënkoog moom ba baa ñuy dajeeg moom ca tey gu ca ayoo ajoo yàlla yàlla jagleel ñu ko waaye gannaaw loolu mbokk julit sunu weer wi day mi ngi nii di dem ay guddeem mi ngi nii di jeex la jot a dem doon lu ëpp lool seede na lépp loo xamee ni nii jëfoon ngeen ko ca wattul na leen lépp lu ngeen ko ca dénkoon doon na nekk ci magasin boo xam ne dara du ci rëcc waaye it la cay njuumte dara it du ci rëcc da ngeen xam ne bis mi ngi ñëw suñu borom yàlla dajale ñu ci bis boo xam ne doomu aadama bu nekk loo mas a def ci lu baax da nga fekk ñu teewalal la ko loo mas a def ci lu bon da nga fekk ñu teewalal la ko bu keroog gi sunu borom yàlla dana woote ay yéen samay jaam ñëw ngeen seeni jëfe ngi nii peegoon naa ko ñeel leen tey nag laa leen di fay pay ba mu méngoon koo xam ne nii gis na fayam doon lu baax na sant yàlla jalla waala ca mooy yàllaa ko may tawfiq yombalal ko ko koo xam ne fay nañ ko ay fayam doon lu bon ngalawaay bu mu yedd ku dul boppam ndax boromam wàccoo na ak moom keroog bi mu ko mayee xel yónnee ko yonent bu ko leeral yoon yu muy jaar ba texe ay yéen mbokk jullit weeru koor gi ñu jëm ci bisam yu mucc ana ñaata ci doomu aadama ñoo teeru woon weeru koor ànd ñun di ko dund te weeru koor wi avant ñu yëg si fii jiitu nañ ñu ay mataluñ ko ana ñaata ci doomu aadama ñooy dund leen weeru koor te déwén weeru koor bu leen fi fekk loolee kon mbir la moo xam ne ku nekk ci ñun war nañ góor góorlu di fagaru di bàyyi xel moom ci ban groupe la ko yàlla subhanahu wa taala di féetale loolu moo taxit mbokk jullit bu dee ne xol yi day dese na lu ko mën a yedd ba tey nañ xamee ne bu dee ne lay di ñaari ceer ya presque jeex na ngal la waaye nañu xam ne weeru koor day des na aw desin des woowu mooy lan mooy la nga xam ne mooy fukki guddi yu mujj ci weeru koor suñu yonente sallallahu alayhi wa sallam ñaar fukki guddi yi jiite weeru koor yépp ak bisam daana ko ittewoo daan ci taxaw ji naafila lu baax lu ne mu def ko ca waaye buñ demee ba fukki guddi yu mujj yi rasul sallallahu alayhi wa sallam day génn këram ñëw féetewoo ca jàkka ja mi ngi noonu ànd ak lenn ci ay soxnaam it daanañ jag na moom ca mooy ñoom it ñëw ca jàkka ja fukki fan yu mujj yépp dootuñu duggaat ca kër ga lu dul aaja boo xam ne munta ñàkk loolu ba yonent bi alayhi salaam faatoo it soxnaam ya loolu la ñu defe woon gannaaw di ko def di faatu benn par benn benn par benn ba jeex tàkk radiallahu anhunna mbokk lii mooy fukki fan yii ñu jëm yonent bi bu masaan ñëw day takk ndigam yeewaa këram amul kenn koo xam ne jàpp ne ne mën na taxaw naafila lu dul yonent bi alayhi salaam daan daana ko yee booleeg di jàng da suñu borom di wax naan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu lit-taqwa di jàngi waxi suñu borom bi mu naan digalal say njaboot ñu julli muñal ci julli googi laaju ñu la benn wërsëg ñun yàlla ñoo lay wërsëgal te xamal ni mujj gu rafet ña koy am mooy ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla daan yee soxnaan yépp yee njabootam yépp sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax ba mbokk xam leen ne ñi ngi jëm ci fukki guddi yi gën ci at mi yi gën ci dund gi ngalla waaye jox leen ko cër ba ko yàlla jox màggal leen ko na ko yàlla màggale profitoo leen jiital ci seen kéemtaleel kattan ngalla waaye bu leen ci a neenal dara doomu aadama bi li nga xamee ne ni man nga ko ci ay jëf ngal la waay góorgóorlu ci xam leen ne kat suñu borom yàlla subhanahu wa taala la nga xamee ne ngërëmam du ko joxe rek ci ay mébét du ko joxe rek ci ay yaakaar waaye lay tax jot payu yàlla mooy nga jëf sa kéemtalal kattan lay tax nga mucc ci mbugalu yàlla du ay jooyat yi luy deme noonu waaye lay tax nga mucc ci mbugulu yàlla mooy nga bàyyi la nga xam ne mooy ay kereem mbokk julit ñu ngi jëm ci fukki guddi yoo xam ne suñu borom jëll waala bi mu ne alquran ju tedd ji man ko wàcce ci weeru koor shahru ramadan alladi unzila fihi alquran gannaaw loolu la ñu waxaat ne inna anzalnahu fi laylati alqadr ñun ñoo ko wàccee ci guddi gu màgg googe suñu borom mu ne waaw wa ma adraka ma laylatu alqadr ma yow lu lay xamal màgga yu guddi googe mu ne laylatu alqadri xayrun min alfi shahr guddi la goo xam ne moo gën junni weer ndax tatarazaa ñu ngi noonu xayrun min alfi shahri tanazzalu almalaikatu warruuxu fiha malaaka yi daañ wàcc seen kilifa gu mag ga jibril alayhi salaam dana wàcc ci kaw suuf ñuy indi la nga xam ne mooy mbiri yàlla yi muy dogal ci jaamam suñu borom mu ne jàmm mucc la àndal ba maa fajar di jot guddi doo guddi guddi gi mag ci lislaam di guddi gi nga xam ne mooy guddi gi gën ci at bi yépp rasul sallallahu alayhi wa sallam am na benn weeru koor mu itikaaf fukki fan yu jëkk ya daa di génn beneen weer mu itikaaf fukki fan yi ci digg ba daa di génn gannaaw ba mu ne nag saxaaba ya yàlla day wax na ma ne lii di leelatul qadr mi ngi ci fukki fan yu mujj yi seet leen ko ci fukki fan yu mujj yi seet leen ko ci guddi yu tool yi loolu moo tax ba sallallahu alayhi wa sallam bu fukki fan yu mujj yi ñëwee wax naa la taxawaay bi mu daan taxaw sant njabootam ñu taxaw ko loolu it mbokk julit yàlla dogal na ba mu fi jógee la nga xamee ne mooy sahabatul kiram daañu daje ca jàkkaam ja di màggal guddi weeru koor rawatina fukki guddi yu mujj ya ngir roy leen ci loolu jàkka yu bari ci penku jant ak sowu jant ñoom it ñi ngi jéem a taxawal loolu di jóg ca waxtu wa nga xam ne fa la jóg gëne te mooy suñu demee ba nga xamee ne nii diggu guddi ga jot na comme na ko yonent ci yàlla daawuda alayhi salaam daan defe ñu leen ko waxe góor ñaag jigéen ña mag ñaag ndaw ña képp koo xam ne yàlla may loo na la nga la waay nga mën a taxaw julli góor góor loolu bul sàgg na loolu wax naa la sànq ne yonent bi de moom da daan bàyyi mboole mi activité am daa di nekk ca jàkk ji féetew fa doowul yittewoo dara dara ci mbiru àdduna xanaa lu dul jokkoo ak boroomam jiite jullit ñi ci julli gannaaw ba wéete boroomam di jàng téereb yàlla bi di ko bakk di ko ñaan di ñaanal jullit ñi loolu dong la daan la daan féetewoo sahaaba yu bëri it daan nañ ko ca roy ba tey it fenk jant sowu jant am na ñu bëri ñu ko cay roy loolee nga xam ne doomu aadama bi su ko matalee fukki guddi ya falillahi alhamdu su ko mënul lam ca man mu def ko ca borom xam-xam yi am na ca ñoo xam ne nii dañu ne ah la gën a néew ci itikaaf mooy mu mat vingt quatre heures te mooy nga boole guddi ak bëccëg ndax itikaaf il faut mu ànd ak koor donte ne am na ca ñoo xam ne nii dañ ne guddi ga rek doy na waaye laa chaque ne comme weeru koor lañ nekk xel munta nangu waa ji nekkul di woor ba pare ñëw di def itikaaf allahuma lu dul yàlla teg ko ngante boo xam ni dafa bokk ci ñu dul woor ca bu boobaa it itikaafam dana wér da doon feebar moo ko tee woor wala tukki moo ko tee woor ay yéen mbokk julit yi ñi ngi jëm ci fukki guddi yu màgg fukki guddi yoo xam ne guddi ñaan la suñu borom bi muy farataal ci ñun weeru koor da caa boole daal di ñuy xamal ne yow yonent bi waxal samay jaam buñ ma lay laaj day ku leen jege laa maa ngi wuyu ñaanu ñamay ñaan ñu ngi noonu su ko defee ñoom it nañ ma wuyu si ci li ma leen woo jëme rasul sallallahu alayhi wa sallam bégal ñu ne guddi gi laylatul qadr day bu ñëwee suñu borom du delloo benn ñaanu julit na am mbokk julit léeg-léeg mën ngaa am ay gàllankoor yu nekk ci yow ba tax yàlla nanguwul say ñaan amma nag bu dee laylatul qadr moom amul benn jurit buy ñaan yàlla subhanahu wa taala lam kay ñaan nekkul lu xaraam lam kay ñaan nekkul daggu mbokk lu dul yàlla dana ko jox loole sunu yaay Aïcha radiallahu anha daa ji ne waaw yonent yàlla bi su dee na man xam naa guddig laylatul qadr kañ lay doon ca loolu it mbokk jurit borom xam-xam yi wax nañ ci lépp ñeen fukki wax allahuma la nga xamee ni ni moo ca gën a nekk takk mooy guddi ñaar fukki fan ba ak juróom-ñaar te ne wax nañ ci lépp waaye yow góorgóorlu ci fukki guddi yépp guddi gu ñëw nga def ko laylatul qadr ma yow yeneen ci bi lan lay ñaan mu ne ko da nga naan yàlla yow day yaay aji jéggale te da nga bëgg ak jéggale te yàlla yàlla nag ma jéggal mbokk yàlla rek ay jéggale bakkaar te yàlla daa bëgg jéggale ay moom ci boppam bëgg na jéggal ay jaam yi noonu la bëgg jaam yi di jéggalante seen bopp kon ay yàlla yàlla nañ ma jéggal mbokk julit xamal ne doomu aadama bi bokk na lu koy xañ ay njëriñu àdduna ak njëriñu alaxira mooy la nga xamee ne mooy ay bakkaar bakkaar mooy dox sa digganteeg sa boroom bakkaar mooy tax nga nekk wali yu cheytaan amma bu la yàlla subhanahu wa taala jéggale say bakkaar xamal ne bunti ngëneel yépp ubbeeku na jëm ci yow mbokk julit nañ góorgóorlu jéem a yokk suñuy ittewoo suñu jaamu yàlla jaamu yàlla day baril ko baax na lool waaye xamal ne nag sellal ga moo gën baril ko yow doomu aadama bi foo war a toll war ngaa jiim di rafetal waaye nag ci jamono yi ngëneel nga war a gën a bàyyi xel masalan lu mel ni jullee ngi ni nga la way gën leen ko bàyyi xel foo dégg aji noddkat bi di nodd bàyyi li nga doon def topp ko ca nodd googe ñaanal julli ci yonent bi ñaanal ko wasiila ñaan say aajo gaawal dem jàppi daa di bu dee góor nga wala jigéen bu ko yàlla yombalit nga góorgóorlu jëm ca jàkka ja jéem a toog ca sàpp yu jëkk ya julli ga nga jox ko toroxlu loolee mbokk julit suñu yenente alayhi salaatu wasalaam nee na seen borom yàlla nee na benn jaamam jégewu ko lu gën li mu farataal ci moom loolu ñu bàyyi ci xel bu baax loolu moom mooy ruuxu jaamu yàlla ngeen bëgg jaamu yàlla gi jëkkante ci jox ko ittee daña bàyyi rek ñi nga xam ne dañuy bàyyi ba heure bu leen neexee ñu daal di jóg daal di ne këpp këpp daal di cay génn déedéet mbokk jullit suñu borom yàlla julli gi dara la ko jëriñul la ko ci itteel mooy yëg yëg di ngay am ci ndigal bi mu la jox looloo tax nga war a góorgóorlu toroxlu war a góorgóorlu rafetlu ko sa kemtaleel kattan xam leen doomu aadama suñu noon bii di cheytaan bokk na ngeen bu nu ba dëgër ñaan yàlla may ko mu dund ba ilaa yawmi diin lan mooy jubluwaayam ci kaw suuf mooy fexe ba yow li la yàlla sant doo ko def su dee réussir na réussir na amma bu dee ne réussirul yaa ngi fas yéene jóg ndig def ndigalu yàlla na doon julli ga la koor ga la ak ga la dana ngemb wat bu dëgër taxaw sa wet fexe ba nga farax faraxee ko fexe ba nga sàgge na ko fexe ba doo ci bàyyi sa xel su ko defee la nga ca waroon a am ci tiyaab yépp doo ko am gàllawaay góorgóorlu leen mbokk ngeen bàyyi xel ci loolu góorgóorlu leen dund gii leen yàlla wërsëgal ngeen xam ne nekkul ci seen loxo ci loxo yàlla la nekk fa muy jeexe kenn ci ñun xamu ko maadaama yàlla ngi la may occasion góorgóorlul balaa ngante di ñëw mbokk julit même bu dee ñëwul it feebar mën naa ñëw ay soxla yu tar mën naa ñëw yi sa njàqare mën naa ñëw yoo xam ne dana dox sa diggante teewlu jaamu yàlla kon fi la yàlla may la aafiya góorgóorlu ci ay mbokk julit xamal na yaa ngi ci ñetti waxtu ñetti waxtu waxtu wu jëkk ba mooy waxtu woo xam ne passé na mbokk loolu passé na mënatoo taa defaat dara dara jeex na mu ngi noonu lan moo la ci desee mooy di ñaan yàlla nangul la yu baax yi nga ca defoon waaye di tuub sa kemtalal kattan bakkaar ya nga ca bàyyi woon ñaareelu waxtu bi mooy lii di ñëw moo lii di ñëw ndax xam nga dana la fi fekkam déet loolee amoo ci benn xam-xam lan moo la ca war na sa yéene sell ci ne bu ma ko fekkee day danaa ca góorgóorlu lu ma man ci lu baax ma def ko loolu bu dee dëggu na sa biir xol même boo ko fekkewul yàlla bindal la lu baax loolu même boo ko fekkee ca mënoo ko yàlla bindal la lu baax loolu waaye nag mbokk julit la nga war a gën a bàyyi xel mooy ñetteelu jamono bi mooy lii nga teewe mbokk lii nga teewe xamal ne teewe nga ko waaye balaa ëllëg mu dem bala weeru koor a ngi nii barki dem bi ñu naan koor gi def na tant de jour koor gi ñëw na koor gi ñëw na tey ñu ne am nañ fukki fan ak juróom-ñeent mbokk loolu lu ñuy jàngal moo di ne nii noonu la mbir yëpp di demee léegi koor dem bañu kon ngal la way lu ngeen mën ci lu baax góorgóorlu leen ci mbokku seytaana bañ a dox seen diggante ak li ngeen xam ana ñaata ñun ci ñun ñoo xam ne bokk ñu lu koy gën a jegeel boroomam mooy bari génn ay sarax jox jaami yàlla yi ndax ñi ko xam ñëpp ñi ngi koy def déedéet ana ñaata ñun ñoo gën a xam toog jël téerab yàlla bi di ko jàng lu bëree bëri xarf boo jàng tiwaaba la ñi ko xam ci ñun ñëpp ndax ñi ngi koy def déedéet ana ñan ci ñun ñoo xam ni jóg sal sa dàll dem jokk say mbokk jaamu yàlla la ndax ñi ko xam ñëpp ñi ngi koy def déedéet loolee ngay topp ba jaamu yàlla li jeex lan moo waral loolu doomu aadama xam ne lii da koy jëriñ xam ne na man na ko ba pare defu ko mbokk loolu ci cheytaane la jógee xeex leen ak moom xeex leen ak seen bakkan te la nga xamee ni nii mooy li des ci dundi gi rasul sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne baadiru bil a'mali fitanan ka qita'i llayli almuslim yusbihu arrajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya rasul sallallahu alayhi wa sallam mu ne ku xam lu baax ku man lu baax la ca góorgóorlu jamono ngi ñëw fitna dana bari lool doomu aadama yi da nga gis ku xëy nekk julit bu sell balaa bëccëge mu doon koo xam ne ab yéefér la da nga gis ku fanaanoo nekk julit waaye balaa xëya mu doon loo xam ne ab yéefér la lan moo koy waral mooy jaay jéeneem ci lu néew xool leen seeni jëf lépp loo xam ne nii lu baax la ca sàmm leen ko bu bañ leen rëcc ni ngeen bañe seen xaalis réer ni ngeen bañ a xéewlu àdduna réer lépp lu baax loo xamee ni ni xam nga ko fexeel sax ca ñaan yàlla mu saxal la ca waaye lépp loo xam ne nii itamit mbokk julit lu baax la ci defagoo ko ñaanal yàlla defal effort ba def ko buñ ci bàkkaare yi it ñu ngi noonu la la ci yàlla nattoo xeexal ak sa bakkan ba ko la la ci yàlla nattoowul sëriw ko daw ko sa kémtalal kattan lii mbokk mooy li nga xam ne nii képp koo xam ne bàyyi na ci xel ah yàlla subhanahu wa taala fokk mu jàppale la amul kenn koy dogu jëm ci yàlla lu dul yàlla dogu jëm ci yow yal na yàlla sellal suñuy xol yal na yàlla rafetal suñuy jëf yal na yàlla dëpp nañu ngërëmam lépp lu ñu koy jegeel mu yombalal ñu ko lépp luy dox suñu digganteeg moom mu sorul ñu ko koor gi yal na yàlla def ko muy koor yi gën mboolem yi ko jiitu woon yal na yàlla teggi teggi ci sunu mboole mi diis baal ñu ci sunu mboole mi bakkaar boole ñu ca ña nga xam ne nii dana leen ràmm yowmal xiyaama yal na yàlla wàcce jàmm ci réewu julit ñi fuñ fuñ ma fuñ mën a nekk yàlla yàlla faj seen aajo zahiran wa batina yàlla yàlla delloo saay saay si nga xam ne ñoo bëgg a gàllankoor lislaam na doon dañoo doon ay yéeféer wala ñu raaxaloo ci biir jullit ñi di leen yàqal yàlla yàlla subhanahu wa taala delloo seen fexe ci seen kaw yàlla yàlla teek suñu ndaw ñi ila sirat al mustaqim ñun ñëpp mu defal ñu mu gën a fecc te defal ñu àjjana firdaws mi suñu wàcce waay yi allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi laxirati xasana wa qina azab annar allahuma innaka afuwun tuhibu lafwa fafu anna allahuma إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين